waaw suuf saa kay la comme que instant bi moom li am am na ba noppi li si des mooy autorités yi nga xam te ni ñoom ñoo géré woon lu ni mel dañ ñëw xool nu ñuy taxawee taxawee parce que lii moom ku ne xam na ni géej moom ku ne xam na li muy def si dëkk du fi du fi kese parce que fépp foo dem lu mel ni am na fa mais quant à ñun nag amul lu dul géej suñu xale ak suñu raxeeg ñëpp la ñuy fawee matukaay yi war a jël daal autorité yi si dox dinañ ko wax comme ñu ñëw xool luñ koy taxawee ba lépp yemba ndax lii moom ku ne xam ne risque mënul weesu lii mais tamit nit ñi dañ bàyyi a joxe information te amuñ si lu leen leer ndax man suñu nekk laa toog taal sama connexion dégg pont baa ngi waaj a maab mi ngi waaj a maab ñun ñëpp ban dawee ñëw gis lii dañoo daraat ànd ànd xam ne yàlla kese fi ne bëgg ay vie wala ay gem tax ngay wax la xam ne nii amoo si lu la leer loolu moom la mais du loolu moom wax dëgg fa neex yàlla bëgg nañ état tamit jël parce que liggéey nekkul da ngay ñëw rek sa caméra commencé filmer wax la xam moom balaa nga koy joxe dafa a doon loo xam te nii moo leer moo illégal mais lii moom état war tamit lu lu mu gën a gaaw ñu xool luñ koy defaree ndax géej moom day day day fees dell te lu mu fekk si kanam moom taxay ravagé waaw loolu moo nekkoon li nga xam te nii mën nañ ko si sànni. en tout cas kay en tout cas kay ñu ngi koy ñu ngi koy dañuy bàyyi ba affaire yi commencé jékki dayo ñuy ñëw te te or que instant bi ñu toll nii ñu ngi siy dox ay démarches chaque instant mais ñoom dañuy bàyyi ba dernier moment ba nga xam ne ni commencé na jékki dayo ñuy ñëw te moom ñun soxlawuñ ko ndax nii ñun li lañ am bu ñu demee liggéey ba wàcc demuñ fenn fi la ñuy ñëw toog te boo xoolee kenn mënutul toog football wala ngay toog di naan ataaya ak yu ne mel ñun amuñ dem lii rek lañ am kon luñ si ñu mën a jàppale ñu jël li ngay jël moom bëri na moom ah, environnement nañu trop parce que da lay leen bu gënee jéggi dayoo moom ba point bi am jéyi su boobaa dina métti si si parce que fii moom ku ne xam ne ne mooy bundu Ndakaaru loolu la yàlla dogal waaw parce que ñun loolu ñun ñu fi dëkk sax ñun bañ ko déggee dañu xaw a jaaxal parce que boo dëkkee si ab dëkk ñun la pont bi nga mabba nga am ay jarbaat ay rakk yoo xam dañ fiy fréquenté da lay xaw a jaaxal ñu si bëri xamuñu information ni mu demee pont bi mabul pavage yi nga xam moom lañ def si booru géej gi pavage yooyu la géej bi commencé di lekk nank-nank moo tax ban déggee ni pont bi day mabba loolu dañu a jaaxal xawoon nañ si tiit Euh, il fallait que daal ñu ñëw xool affaire daal nu mu demee waa jaaxaloon na ma nag vraiment jaaxaloon na ma trop trop parce que boo toogee sa néeg moom ñun la pont mi ngi mab moom doo def lu dul tiit moo tax nag ban ko déggee ñun dañ njëkk ñëw xool ndaka def pavage yi la waaw moo waral nag gars yu bëri na naan pont bi pont bi alors que du pont bi pavage yi def si boori géej bi la géej bi commencé lekk nanka na parce que période bi boo ko xam nga xam ne période bi géej b day yëngu te géej nag bu yëngu fekkee si passage da da jëlee géej moom daanaka kenn mënu xeex ak moom kenn mënu xëccoog moom lépp lu mu fekkee si kanam moom dëgg da ko fay que boo xoolee nu mu ni mën na gi xëy di gën a dem di gën a dem ba yegg fële fi nga xamante ni parce que day gas loo xam day gas bu gasee li ci kawam day màbb te tamit danger la ak xale yi xam fi leen di fréquenté fi leen di fooye xam nga xale yi mën na fi dugg di foo sax te doole leen yëg alors que affaire màbb seen kaw moo lii maa ngi ñaan autorité yi tam ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko defar ñu ñoo xoolaat ka ba xam yan mesure lañ si mën a jël wala yan solution lañ si mën a jël pour que lii daal mu mu daal ba ñu yëg ba ci kaw géej gi da koy nangu ndax géej moom ak weej moom dagg rek bâtiment yi étage yeeg yëpp parcelle ak Cambérène ku fi def étage géej gi da koy jël daggu ndax géej gi ponkal moom moo ëpp doole weñ gi <laughs> Cambérène laa dëkk xam naa la ci xew lépp gis naa ko mais nag xam nga mbirum surtout mbirum état moom ak lu mu defar da nga cey maandu surtout jamono léegi bi su mag waxee gone ne ko da ngay fa da ngay fen ndax léegi gone yi amatuñu ab yar li tax xam nga li tax kilifa diine yi waxatuñu gone yi dañ leen di wax lu tegginu loo wax gone ñëw dingal la wax la lu nga xam ne lii neex yar ci boppam moo amatul ci jamono bi yar amatul noonu neen yaroo woon sunu doom yi duñ yaroo ndax boo ne benn saloo mu ni fukk xam nga kooku moo tax léegi jamono ji yar amatu ci poids bi kay liggéey bi baax na liggéey bi dëgër na waaye nag dëgërale ponkal bi géej dafa dafa dafa neexul <laughs> état moom ni ñu ko liggéey moom baax na kontaan nañu ci c'est baax na liggéey bi baax na moom trop trop trop waaye nag ponkal mi daa neexut na liggéeyal ponkal yi mooy kan géej gi maam yàlla ko defar moo koy moo koy yëngal moo koy wàcc loo ci defar ñaare bâtiment yooyu yëpp de xamu nag pompe yi waaye bâtiment yooyu yëpp da koy yàq waaw maam ngay ponkal moom weñ ko fi ne moom da koy xëcc ci état euh, étage bi da koy xëcc mu wàcc étage moom da koy xëcc mu wàcc moom mais nag euh, pompe moom ñu ko defaree moom ba dëgg yàlla baax na